Bonjour et bienvenue à tout le monde, bonjour à toutes et à tous, à tout un chacun, à tous les téléspectateurs de la première chaîne de télévision privée du Sénégal. Bonjour, bienvenue dans le Good Morning. Cette émission vous est offerte par Nescafé. Nescafé qui est 100% naturel, Nescafé éveille tes sens, Nescafé tu le prends comme tu l'aimes. Nescafé en communication en ce moment parce que dafa am benn mbir bu tudd Nescafé méga xéewal yéen ñi nga xam ne yëgagu leen ko dinañ leen ko fàttali ci biir émission bi ci ànd bu ànd ak dogal yàlla ci kanam tuuti. Nous sommes aussi avec Wave l'opérateur euh, qui vous permet d'envoyer et de recevoir de l'argent et de tout faire gratuitement sur la plateforme Wave sa xaalis yaa ko moom bu la kenn noot bu la kenn xë euh, xërñëñal bu la kenn gëtën bu la kenn def lu la naqari Wave wave mooy suñu xarit mooy suñu xarit mooy suñu wave yaay suñu xarit bu ñu amee ginaar may la pooj bi yaay suñu xarit wave yaay suñu xarit nous sommes aussi avec Air Sénégal International qui nous accompagne dans cette émission merci beaucoup à Kiren Mobile Kiren euh, les puces vertes qui règne avec Orange nous accompagne dans cette émission pour le plaisir de tous les téléspectateurs qui nous regardent sur la première chaîne de télévision privée du Sénégal ñu tàmbaleeg yéen te di leen yëgal ne Boy Town tey invité na humoriste bu graw bu extraordinaire bu talentueux bu ñuy wax Silla aka Mansari Hani Mari Hari Bari Hari eh, moi je kiffe bien ces vidéos sur TikTok il nous fait marrer comme il a l'habitude de le faire Boy Town aka Raxambalu Talko Mbaj Aujourd'hui, nous allons, avec Pape Aluntine, parler des perspectives économiques, contenu local, les parts de l'État et le cost oil. ñi nga xam ne moom moo di suñu ay ressources naturelles on va en parler comme on a l'habitude de le faire tous les alxames loolu moom moo nar a nekk saupoudré de le saviez-vous borom boutique yi dañoo gréew ci kanam tuuti Grégoire dina jokkoo ak ki nga xam ne moom moo di El Hadji Aboubacar euh, Boubacar Ba ngi nga xam ne moom moo bokk ci euh, ñi jiite kuréel gi ëmb mbooleem borom boutique yi gerew boobu lan la dinañ ci jël quelques baat ci information en ce qui le concerne chaque fajar bu ñu yow li ñuy njëkk def balaa ñooy wax ak yéen wax ju sori mooy fàttali leen li mës a xew ci Sénégal bis ñi ki tey tey la ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru novembre 2022 le 24 novembre 2022 lan moom mosoon a xew ci suñu réew bis ñi ki tey le 24 novembre 1993 bis ñi ki tey la ñu créé police municipale Hmm. Ah, waaw le 24 novembre 1993 création du corps de la police municipale conformément à une loi votée le 4 février 1993 pour la réinsertion des agents de la sûreté nationale radiés des cadres de l'administration suite à une marche de protestation le 13 avril 1987 1987 police du Sénégal dafa amoon ñoo xam ne dañoo amoon leen naqari ñu def benn marche ka fa nekkoon ci ministère bi l' ba di Jean Collin ak Abdou Diouf def radiation raxas police bi zéro 1993 bis ñi ki tey kon la ñu indiwaat ñeen ci ñooña pas tout le monde ah on a fait revenir quelques éléments de cette police en les intégrant dans la police municipale Euh, Dakar Thiès la manifestation yooyu amee woon le 24 novembre 1993 bu ñu leen laajee kañ la police municipale amoon ne leen novembre le 24 novembre 1994 création à l'école de l'école supérieure polytechnique de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ESP bis ni ki tey lañ ko créé waa UCAD ESP bi ngeen di gis noonu sama ndox nga jël jël nga sa ndox papa de sa man sa papa laa biri na sama yoon nekk <laughs> jël sama ndox lu ma ne naqari sama xol bi laa lay wax <laughs> le 24 novembre 1994 14. Création de l'école supérieure polytechnique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar ESP. Elle regroupe plusieurs écoles et établissements supérieurs et professionnel en vue de décentraliser, de centraliser la formation, la production, la recherche appliquée et les services en direction des entreprises privées et publiques. Bis ni tey la loolu amoon le 24 novembre 2001 ordination épiscopale de Monseigneur Benjamin Ndiaye évêque de Kaolack cathédrale Saint-Théophile de Kaolack son évêque s'appelle euh, Monseigneur Benjamin Ndiaye il remplace le cardinal Théodore Adrien Sarr nommé archevêque de Dakar suite à la retraite du euh, cardinal Hyacinthe Thiandoum Hyacinthe Thiandoum ba mu demee à la retraite dañoo jël cardinal Théodore Adrien Sarr mu wuutu ko ka nekkoon Kaolack di Benjamin Ndiaye di évêque bu Kaolack ñu indi ko mu remplacer Théodore Adrien Sarr moom monseigneur Benjamin Ndiaye loolu mu nga amoon bis ñi ki tey le 24 novembre 2001 le 24 novembre 2002 décès à l'âge de 72 ans dans sa ville natale de Saint-Louis du Sénégal Aminata Fall la grande chanteuse de jazz et d'Umbalax elle avait débuté sa carrière dans la musique en 1958 de l'orchestre euh, Star Jazz de Saint-Louis où elle a été illustrée comme Yaay Boy comme Mbëggeel à l'appel du président Senghor elle avait intégré le Théâtre national Daniel Sorano à Dakar en 1966 premier festival mondial des arts nègres ngeen gis moom moo le 24 novembre bis ni ki tey en 2002 elle a été chanteuse de jazz et de mbalax c'est une voix extraordinaire si vous n'avez jamais écouté sa chanson vous pouvez aller sur YouTube vous écrivez Aminata Fall Kang vous allez apprendre xanaa lii doonatul gayndeg neen gayndeg neen guy dugg ci biir néeg tànn ci waxambaane yi gën quoi loolu dafa grave. ah oui c' est super. <laughs> la chanson existait auparavant mais aujourd'hui ay affaire gaaruwaale la ko waykat yi def. ay sama noon yi di ma xool ma leen xool. pour que après booy yi TikTok moo tax c' est des musiques à jeter. ça dure deux jours trois jours challenge. Mm-hmm. après ñu mm-hmm. sànni la ci mm-hmm. aw boor. mbëggeel sama xol bi c' est pas mauvais de chanter ça. mais les chanteurs dans le temps. ils avaient des textes ils écrivaient déchire le temps. Mm-hmm. way bi boo ko tegaatee tey. day mel ni tey la day mel ni tey la. waaw on écoutait la musique. mais léegi. tu dis punaise qu'est-ce qu'il fait c'est, de la musique ou c'est de la torture <laughs> la tortura ça devrait s'appeler <laughs> ah, ah, <laughs> il est 9h0 on va prendre pour maximum El Hadji Boubacar El Hadji Boubacar Ba c'est euh, le responsable de l'organisation des boutiquiers du Sénégal UBS Union nationale des boutiquiers du Sénégal il est le vice-président Grégoire su fekkee El Hadji Boubacar Ba mu ngi ak en ligne ak ñun ñu jël ko mu wax ñu grève bi ñu dégg ne borom boutique yi dañ koy grève lan la ak kañ la ak lu tax El Hadji Boubacar bu fekkee yaa ngi ñu dégg ñu ngi lay nuyu El Hadji Boubacar aloo El Hadji Boubacar en attendant je vais dire bonjour à Papa Luntin droit de naissance oblige grand ziar naa la. delloo ziar Pape Sidi Fall. en soo ko paree soo ko jotee rek jox ma. di la nuyu booy temps woon. di nuyu suñu invité bi. Mm-hmm. di nuyu ñu si à travers la 2STV. Mm-hmm. Euh, Pape Sidi tey dañuy waxtaanee tey euh, Kayar Kayar offshore profond perspective économique maanaam li ñu war a indil ci koom-koom euh, li ñu wax naan cost oil cost oil maanaam li nga xam ne moom la ñu investir te ñu war ko fay. ak li nga xam ne mooy part de l' état maanaam part l' état. la part de l' li ci état bi am li ñu investir li ñu nar a jural ak li ci état bi nar a ak li ci a état bi nar a ak li ñu war a fay. ak li ñu war parce que war nañoo fay ah. waaw war nañoo fay on doit payer effectivement notre pétrole mais pour le trouver il faut qu'on paye des gens pour qu'ils nous trouvent ça. qu'ils nous trouvent ça oui. d' accord incha Papa Alioune dinañ waxtaanee lu am solo. Mhm. Boy Town aka Raxambaalu aka Talko Mbac aka waaw Pape Sidi maa ngi lay nuyu di la jox sa wàccuwaay di nuyu sama Papa Alioune di nuyu sama invité Silla euh, la grand humoriste. waaw di wax ne maa ngi bëggee waa Diamaguène gi nga xam ne fa laa yeewoo di nuyu waa Guédiawaye waa Kër Massar plus précisément euh, fële ca Daaru Misel di wax ne maa ngi bëggee ñëpp. di wax ne amaat nañ mbég ak contentement wu ñëwaat fii nii ci sunu rubrique dagg wàcc yaakaar naa ne waaw xam ngeen naka lay demee donc may wax si la mun ngaa nuyoo. asalaamaaleykum ñu leen nuyu di leen ziar bu baax a di kontaan bu baax a baax ci bi ñu tamit di nuyu voilà fi ñu dëkk waa Louga. Mhm. waaw nga xam ne ñooy suñu suñu lépp fa lañ jógee ñëw université ambassade nuru étudiants yi borom xeer yi leen bëggee bu baax a baax ñu lay représenté ak waa yëmbal nga xam ne foofu laa nekk ginnaaw mhm. université. di kontaan bu baax a baax voilà di ñëw di partager plateau bi voilà ak yéen ñii. université seen way bi rafetul dara. war ngeen ko changer borom xeer yi borom ñoom ay xeer rek la ñu dégg naa noonu ngeen xiifee ci biir <laughs> loolu métti na ma trop mais seen université bi ni mu rafetee assuré moi du ngeen weer ay caleçon ci kaw ok mm-hmm. ah, lépp am na ay caleçon na yàlla man loolu dafa ma naxa ñi defar université bi jëluñ considération loolu Boubacar Ba euh, Union nationale des boutiquiers du Sénégal est en ligne avec nous dans le Good Morning dañoo bëggoon a xam gerew bi ñu dégg ne boutiquiers yi moom la ñu gerew lu ko waral ak euh, ñoom lan moo ci seen taxawaay ñoom Union nationale des boutiquiers du Sénégal Boubacar ñu ngi lay nuyu allo Boubacar Boubacar allo Boubacar. oui allo. allo Boubacar yaa ngi may dégg. maa ngi lay dégg maa ngi leen di nuyu di leen saa Pape. di nuyu ñi nga bokk sénégalais yi toog di ñu déglu ci seen kër ak ci biir réew mi ñu ngi bëgg xam boutiquier yi lu waral ngeen ne dangeen di gerew waaw man la El Hadj Bakar Ba nekk vice président UNBES union nationale des boutiquiers du Sénégal am nañu wax ñun ñooy def grève mais loolu laa bëggoon leeral faj ci di nekkul waa UNBES union nationale des boutiquiers du Sénégal ñoo ñoo wax nañu grève des jours ñooñu Thiès la ñu nekk waaye am nañu fi yenn membre fii ci Dakar ñun ak ñoom ñoo bokkoon kuréel waaye dañu dem ci biir euh, ñoom ñu bëree ko bëgg a jël seen yoon bopp de nekk grève parce que ñun mot d'ordre UNBES union nationale des boutiquiers du Sénégal que nañu boycotté yenn produit yi nga xamante ne buñ ko jaayee dañuy jaay à perte parce que ci concertation yi ñun demoon nañu indi ñuy solution jox état bi li nga xamante ne bu ko defee euh, ñun jaaykat yi prix bu génnee dinañ ko mën a respecté waaye gis nañ depuis lors defuñu ci dara jëluñ ci benn benn benn benn benn conseil bu leen jox moo waral fu mu toll nii ngeen gis sukkar bi manqué dundin bi gars yi tamit yokku na soble bi kenn jaay ci ko pompier bi tamit gars yi dañ ko boycotté lan moo waral parce que état bi lu ñu waxtaanee ñoom defuñu ci dara mais ñun parce que dañu xalaat bu ñu demee ci grève population bi la ñuy gaañ population bi la ñuy sonal te alors que népp sénégalais yi consommateurs yi ñun yëguñu tinuñu ñun fekkee wuñu sax bi ngeen di jël seen ay décision yooyu voilà donc moo tax boo jiitee ay kuréel mën na dafa am décision yoo xamante ne balaa nga koy jël pour man waroon ngaa mën a waxtaanee commerçant yëpp mais munoo yor xam la pour renseigner sa sa kuréel te yaa ngi gaañ sénégalais yi te loolu jàpp nañ ko aussi li ngeen di def UBS grève wu leen mais li ngeen di def moo grève yam ndax da bu jaayul lu muy jaay voilà mais am na yeneen articles nga xam te ne mun kaa jënd bu amul ordinaire mun nga jënd ceeb parfumé bi pap mais bu ne da nga am problème mu jënd trois cent vingt cinq ceebu ceebu non parfumé noo jëndee quatre cent cinquante ceebu am na yeneen solution yoo xamante amee kër gu am fukki doomu aadama da ngay jënd libaru ceeb waaw mais loolu tamit du loolu tamit gis nga mais moo tane que nga fekk sa place am na ñoo xamante ne boutique am nga mun nga soxla leneen loo xamante ne du loolu noonu yëpp parce que tey ji marché bi na ci place yi moo bi du du ko defee rek askan bi ngay gaañ euh, loolu moo tax ñun ñoo décrété euh, kii boobu grève boobu te alors mu toll nii ñun a dañuy leeral tamit am na suñu benn membre bi nga xam te ne mu ngi parcelle gars yi dañ blocage ndax tojul te loolu aussi kan mooy responsable bi mooy Aliou Ba. moom lañ koy ji El Hadj Boubacar El Hadj Boubacar. oui El Hadj UBS euh, Union des boutiquiers du Sénégal est-ce que boutiquier yëpp ci lañ bokk parce que boutiquier yi bu ñu bëggee grève ngeen ne yéen décrété wu leen grève da ngeen di boycotter prix kon ce qui veut hmm. dire que tous les boutiquiers ne sont pas dans UBS. waaw am na ñoo xamante ne ñëpp si lañ nekkoon mais daa ñu génn ñoo xamante ne ñu créé seen association bopp ñoom tamit am nañ yenn membre léegi nag ñoom dañu bëgg a grève mais nañu grève à seen membre yi parce que nañu imposé gars yi nañ ci en force am nga li ku am nga droit tëj ku am nga droit tamit bañ tëj El Hadji Boubacar Ba vice-président de l'association des boutiquiers du Sénégal euh, je pense que monsieur le ministre Abdou Karim Fofana est en train d'écouter le président gerewuñ waaye dañu boycotté yépp prix yi nga xam ne dañ koy wàññi lan moo tax ngeen di boycotté prix yooyu ngeen di wàññi très rapidement voilà vite fait parce que dañ ko nar jaay ci ceeb bi fu mu toll nii dañ ko imposé nañ ko jaay trois cent vingt cinq ñun dañu joxe woon suñu membre yi yëpp état def na force léegi nañ ko jaay wanteer ko à perte buñ ci paree ñu bañ a jëndat yooyu parce que buñ ko bàyyi suñuy place mooy super bi ceeb bi di la di di di di yóbbu sa say amaan képp yow da ngay jaay personne moo tax bu ñu jaayee bi mu jeex dootuñu jënd ci produit yooyu tant état bi xoolaatul arrêté bi nga xamante ne fu mu toll ñu jàpp nañ am na faay yi nga xamante woo autorité lépp waxtaan la ñun nii waaye nag bu demee ba xamante ne gisuñu solution après ñun nañ ko xoolaat yeneen solution mais fu mu toll nii vraiment dañuy naq ñi nga xamante tëj nañ seen place loolu dégg du yoon askan bi def ñu dara euh, bu fekkee ne ceeb bi bu fekkee ne ministre de l'intérieur na bàyyi xel aussi yi nga xamante ne euh, tëjuñ seen place ma ni bu fekkee ne borom boutique yi dañu bëgg ne trois cent vingt cinq arrangé wu leen mhm. maanaam bu ko jaayee dañuy perte ban mhm. instant ngeen di bëgg lan ngeen bëgg état bi euh, def ko ndax mu wàññi ci grossiste bi wala mu wàññi ci importateur bi wala mu yokkal boutique yi lan ngeen ci bëgg waaw moom lan la def marge boutiquier bi détaillant bi la war a sooraale parce que bu xoolee trois cent vingt cinq quinze franc la ci def comme marge te quinze franc boobu yëpp fere la suñuy frais d'emballage la donc ça dañuy perte amuñ ci dara ci saako ci ci kilo ceeb boobu. waaye benn mbuus jarul ñetti dërëm nag ah, ah, Alaaji Boubacar. benn mbuus jarul ñetti dërëm mbuus bu bëree ba dërëm lay jar. dix franc lay jar mbuus bi dix franc lay jar. mbuus bi dix franc bu fekkee lay jar. ban mbuus bi trois cent lay jar paquet bi trente moo fay nekk benn dix francs la lay dikkee mon frère bii def kilo. jërëjëf ci leeral. voilà jaaja ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm. Ah, président de la république son excellence monsieur Macky Sall waroo gis-gis am na ci diggante yow say ministre ak ñi lay xelal ci njëg yi nga wàññi da nga toog ci télé bi nga ne nañu jëndee kilo ceeb non parfumé trois cent vingt cinq borom boutique yi nee nañ suñ ko jaayee dañuy perte ñii nee nañ dañuy grève dootuñ jaay ñii nee nañ boycotté nañ prix yooyu c'est-à-dire bu ñu ko boycotté ki daan jënd kilo ceeb cinq léegi bu demee ceeb bu parfumé dafay fekk 450 wala 475 wala 500. faaw nga wax ak ñii importé ñu wàññi bu baax grossiste bi wàññi bu baax ba bu yegsee ci boutique bi nit ñi mën koo jënd. parce que borom boutique yi wax dëgg yàlla ñun ñooy suñu ay interlocuteur direct loolu moo nekkoon li ñu ci bëggoon a wax ndax le saviez vous lañ ko defoon tey alaaji baal leen ma ci yéexaay bi Papa na euh, ñu ànd ak euh, Grégoire mu lay wan ay nataal ay nataal waaw ngay dikk ak ñun ci nataal bu nekk lan mooy njariñam ak lan lañ ci war a xam balaa ñuy dugg ci euh, genn wàllu émission bi voilà ñu tàmbali d' parce que lii lan la perspective d' abord fii carte la boo xam dañu wone gisement yi en rouge donc li nga xam ne mooy rouge gaz la li nga xam ne moo zone yooyu mooy jamono yi nga xam ne dañu doon seet loolu woneegul ne feeñ na sismique bi wane na ne am na lu fa xew rek waaye leeragul donc fi ñu bind yaakaar teranga moom mooy côté Sénégal mooy euh, Rufisque kii Kayar offshore profond euh, li nga xam ne moo ne ci kaw li ci digg gi li xonk li loolu GTA la nga xam ne ñun ak Mauritanie ñoo ko bokk leneen li ci kaw côté Mauritanie la mu tey ñuy waxtaanee tey euh, yaakaar teranga le projet yaakaar teranga bi nga xam ne diggante 2016 amoon na découverte mooy teranga 2017 mu amoon mu amaat découverte yaakaar ak 2019 yaakaar donc mu nekk gisement bu am importance pour Sénégal mu nekk boo côté Sénégal rek nekk à 95 kilomètres de Dakar au nord-ouest de Dakar donc ci biir géej gi la nekk à 95 kilomètres la nekk ci biir Dakar mu war am na phase boo xam ne première phase bi dañuy exploité gaz pour suñu suñu centrale ndax mhm. gazu Sénégal bi du gaz boo xam ne pour togg la ci biir kër yi gaz méthane la boo xam ne pour ay centrale la léegi nag perspective économique mooy lan bés bi ñu tàmbalee gaz bi en deux mille vingt quatre la parce que Kayar deux mille lay commencé du ñu jaayee jaayagum waaye nag pour suñu centrale suñu centrale donc day tax day mooy perspective économique yi day wàññi suñu consommation non seulement gaz bi ñoo ko moom ndax gaz moo gën a yomb ñun lu ñu consommer actuellement bien vrai que Sénégal am na ci euh, lu ëpp 30 pour cent ci énergie renouvelable loo xam ne loolu dafa yomb ndax énergie renouvelable moo gën a yomb pétrole mais nag gaz moo gën a yombati ndax ñun suñu centrale li ci ëpp fuel la te fuel dafa cher te dafa dafa day indi ay day indi saxaar su bon waaye nag gaz bi nga xam ne moom la ñu yor Sénégal bu ñu ko lakkee ci machine yi du indi saxaar su bon set na te ba pare dinañu indil économie su dina doxal suñu économie courant bi dina wàññeeku donc boobu war a tàmbali en 2024 mooy première phase bi 2024 jëm 2053 léegi nag gazu mhm. kayaar boobu bari na bari waay boo xam ne ñun buñ ko exploité dina indi njëriñ non seulement ci xaalis mais en 2030 ndax 2030 dañu commencé def li ñuy wax GNL installé installation yoo xam ne mooy GNL GNL mooy liquéfaction mooy jël gaz bi nag seral ko pour bato yi mun ko yóbbu bitim réew waaw mooy GNL donc mhm. en 2030 lay tàmbali donc foofu nag ndax dina indi koom-koom bu baree baree bare ci 2030 waaye nag déjà en 2024 di nga gis ne dina changé ndax bu courant wàññeeku ci réew rek déjà di indi lu baree baree bare mais 2030 ñu ngi soog a gis na suñu bopp ci gazu Kayar boobu te boo xoolee gisement bi rëy na rëyaay boo xam ne dina durer 47 ans dina durer 47 ans. gisement bi gisement bi dina durer 47 ans la Kayar war a durer. voilà te bu ñu demee 2030 dinañ commencer exploiter lu ëpp 13 milliards de mètres cubes par an loolu nekk lu considérable te boo xam ne Sénégal kese moo ko moom 13 milliards c'est consistant dina indi booster suñu économie lu bëree bare bëri. Sangomar mooy deux mille vingt quatre deux mille vingt trois mais Kayar pour suñu courant deux mille vingt quatre la GNL li nga xam ne pour jaay bitim réew deux mille trente la treize milliards c'est c'est c'est consistant mooy perspective économique yi leneen li mooy gaz bi encore lu mu ñuy indil encore ci wàllu koom-koom mooy ne. Mm-hmm. Euh, luy jeex la gaz luy jeex nekkul éternel lu ñu xalaat ñun rek même su fekkee man dama ko fekkee sax mais dafa am ñuy ñëw Sénégal day continuer donc am na xale yoo xam ne ñu ngi fi ay ndaw lañu ak ñoo xam ne ñu ngi war a judd 47 dañuy jël gaz bi du question que dañuy jël rek jël gaz xaalis ba rek di fay nit ñi ñu tëdd ñuy noos ñuy kii du noonu fi nga xam ne fa la ñu amee suñu économie sooxee mooy ci wàllu mbay ci wàllu nangam industrie foofu la ñu war a financer suñu gaz pour ëllëg ñu mën a am dëgër laay ba nga xam ne ñu mën a jéggaani dara bitim réew mooy suñu agriculture dafa sooxe te gaz bi nga xam ne moom la ñu am mun nañu ci defar lu ñuy wax ure urée moom la ñuy jëlee Ukraine ak Russie ak yooyu foofu la ñu koy jëndee di ko jéggaane mu doon kii parce que loo xam ne. engrais la urée engrais la. engrais la engrais la engrais de ren saako bi ñaar voilà ay vingt cinq mille jar te man su sañoon béykat yi jëndee ko sept mille francs ñu subventionnel ko loolu laa man loolu laa waaw mu gën a yomb mu jar sept mille francs wala six mille francs donc urée boobu bu ñu ko defaree Sénégal dina am solo trop trop ndax signé ñu benn con mémorandum maanaam contrat ak société bi ñuy wax Mitsubishi japonais yi pour ñu installer usine boobu Sénégal maanaam usine d'ammoniac boo xam ne dina a transformer gaz bi en ammoniac léegi mun nga xam ne mooy urée te urée am da koy jënd Sénégal da koy jënd ak yooyu waaw ci ammoniac lay jógee ammoniac bi nag ci gaz lañ koy defaree méthane bi nga xam ne moom la ñuy kii moom mhm. nañ ci defar ammoniac donc dinañ ne ay perspectives day indi ay perspectives yu économique yu doy yu am solo. Mm-hmm. waaye nag du wax ne gaz bi dañ koy jël rek di ko exploiter rek tëdd noonu rek. loolu du développement maanaam dangay ngay riche éphémère rek comme li wax naan Qatar riche na c' est vrai. Mm-hmm. c' est le pays le plus riche au monde industrialisé ak riche bokkul. boo amee xam-xam lu ñëw rek dinga nga ko mën a lu mu àdduna lu ñëw rek di nga ko mën a ko mën a dëkku mën a adapté ci loolu mais bu fekkee da nga am xaalis rek mais da ngay riche mm-hmm. après say sët say doom say mm-hmm. nangam dañuy mm-hmm. pauvre dañuy pauvre moo tax tubaab bi ñoom ñuy liggéey ci àdduna rek di liggéey ci xam-xam toujours saa su ne ñu changé domaine yi saa su ñu topp ñun ñu ci topp rek fu ñu dem rek ñu topp leen fekkee dañu ñun dañuy liggéey comme ñoom ci wàllu xam-xam bu ñu defee ni tam ñun tam ñu teg leneen teg ko seen kanam ñu teg ñu xool ñu jàkkaarloo àdduna bi ci xam-xam la ñu war a demee xam-xam moo moo jiitu actuellement moo tax naar yi nee nañu ëllëg gis nga ni ñu commencé changer pétrole bi déjà ñu ngi commencé saw jiyee ne dañuy may ba 2060 mais ñee pare nañu déjà pour contourner ay truc ndax dañ koo soxla mhm. pareeguñu ñoom ndax ñu ngi liggéey ay yeneen xeetu xam pour mun am courant boo xam ne ñoom tamit day ci hydrogène vert nga xam ne dañ koy mais a amaguñu lañ ci doy mhm. mais ñu ngi ciy liggéey ko dinañ ko dinañ ci àgg ko réussir dinañ ko réussir mhm. donc ñun aussi nañu pare gaz bi nga xam ne moo xew Sénégal moo feeñ Sénégal ñu jël ko investir ko ci wàll ci ay domaine industrie ki domaine xam-xam xale yi nga xam ne moom la ñu wane mercredi xale yooyu dañu war a encadrer par exemple dañu wane ay xale yu génnee yu xarañ yóbbu leen ci ay yeneen yeneen waa formation kii leen accompagner leen waaw accompagner leen ba nga xam ne dina mën a indi njëriñ ci réew mi déjà war nañ ne am na seen quotient intellectuel dépassé na yeneen xale yi donc war nañ leen ber indi fi genre suqali xam-xam créer li nga xam ne mooy philanthropie philanthropie du ñu jël rek maanaam ay nit ñoo xam dañuy yor wala entreprise yoo xam dañuy yor seen xaalis seen koom-koom di ko investir ci lu am njëriñ ci loo xam day doxal réew philanthropie loolu la maintenant li nga xam ne mooy Kayar investissement yi nga xam ne moo fay am day lourd investissement yoo xam day lourd maanaam bu ñu joxee bloc bu ñu joxee bloc Cosmos moo fa nekk 30 pour cent la fa am ak euh, li nga xam ne mooy BP moo fa ëppale mooy 60 pour cent Cosmo kii am fa euh, Petrosen am fa 10 pour cent ci Kayar mais kii concession bi la mooy bépp anglais la Cosmos américain la euh, Petrosen Sénégal ko moom moo société la waaye nag bu ñu séddoo bu fekkee dañuy séddoo moom bu gaz génnee la Sénégal soog a taxaw ne. waaw nangam laay am bokkul ak Petrosen. Mhm. foofu na dañu wax ne bu fekkee trente à de zéro boo lu jege trente mille trente mille barils par jour état bi dina am trente cinq pour cent mais Kayar sànq bi may wax ne dinañu dem ba dix milliards treize milliards de mètres cubes maanaam état bi cinquante huit pour cent la fay am moo tax lu am solo la. te impôt mais cinquante huit yi du nekk première part rek cinquante huit pour cent. 58 pour cent mooy bu ñu àggee ci kii parce que ça dépend de production bi donc on est on sera à 13 milliards à 13 milliards de mètres cubes maanaam 10 millions de tonnes par an foofu état bi lay am. première phase bi ndax ne nañu à partir de 120 000 barils foofu 120 000 lu ëpp 120 dañuy am 58 pour cent donc dañuy passé li ñuy wax cinq dañuy dañuy am dañuy am 58 pour cent ci Kayar bi mooy élevée te aussi pétrole dafay génn ndax am na lu ëpp 161 millions de barils yoo xam ne. mu nga fa donc gaz bi bari na fa lool waaye am na fa tuuti pétrole boo xam ne dafay génn aussi lu mat entre vingt trois mille et vingt cinq mille barils par jour dina fa ale donc mu ne perspective yu am solo la maintenant ñoom lu ñuy investir bi ngeen joxee concession bi ne leen investir leen Petrosen da ci am automatiquement di pour cent mais du investir dara ñoom na ñooy investir seen xaalis su ñu gisee mooy jamono yi nga xam ne dañuy investir mooy seet pétrole mooy ñuy wax sismique diggante boobu boo ni investir donc def nañu sismique ba nga gis def nañu forage yi yooyu yëpp xaalis la léegi nag bi ñu defee forage yi ba pare def nañu étude finale de kii faisabilité bi nga xam ne jeex na 2022 léegi nag investissement yi aussi bu ñu investir ba pare nag gaz bi su tàmbalee génn ñoom dañuy wax lu ñuy wax cost oil cost oil mooy dañ ci génne dañ ciy teq li nga xam ne moom la ñu investiroon dañ ko ciy génne ba pare soog a séddoo ak Sénégal waaye loolu nekkul luy wéy maanaam loolu cinq ans lay duré ñoom pour ñu mën a jël seen xaalis mooy BP ak Cosmos cinq ans lay durer pour ñu mën a récupérer lu moom moo tax ci diggante cinq ans yooyu ñun dinañu mën a vraiment am bouffée d'oxygène boo xam ne suñu économie dina mën a suqali. suñu économie dina mën a suqali. li mën a suqali ko donc à condition que ñi ñu yoreel bor ñëwuñ taxawuñ ko. waaw parce que waaw am nañu bor. parce que ñun on a on a beaucoup a beaucoup de dettes on doit waaw beaucoup de pays. oui oui mais. vu le volume c'est ça. te yokku ba mais vu le volume cest ñu wàññee d'ici kii parce que buñ lu ñu xoj dafa bari déjà ñun lu ñuy jënd rek ci ci petrole jege na 1000 milliards. courant bi gis nga courant bu jamonoy tàngoor gis nga des fois jamonoy tàngoor consommation bi day élevé tellement que. actuellement lu bari dafa yëg ba nga xam ne ak euh, le fuel. dafa yéeg ba nga xam ne gaari yàkkam sedd bi ñëw sax pour nga xam ne xaw a dalaat pour mu xaw a dalaat pour ñu wàññi climatisation ndax loolu donc donc <laughs> loolu rek bu fekkee ñun jaayaguñu rek en 2024 suñu amee courant kii boo xam ne gaz bi déjà su commencé dugg si suñu ki centrale yi rek que ah. déjà pare nañ ko ci côté gaz moom gars yi pare nañu hmm. côté pétrole moo des pour nga xam raffinage bi mais côté gaz moom pare nañu pour nga xam ne bu ñu tàmbalee rek dina dina bu ñu tàmbalee rek centrale à charbon yi ak yi jël euh, pétrole brut yëpp mën am nañu voilà centre modifié nga xam ne dina mën a centrale à gaz voilà donc dina mën a wàññi d' abord mais nag ñi nga xam ne ñoo fekkee 2030 dinañu gis beneen changement parce que bu boobaa 13 milliards de de de mètres cubes boo ko calculé wax dëgg yàlla di nga gis ne dina mat 15000 milliards ku ko xamul tamit dina ko mat dina mat ci budget loolu kese kayaar kese boo calculer parce que boo yaay calculer sa bopp boo xoolee boo ko calculer nga xool paar yi di nga xam ne loolu war na mën a nekk. day war a mën a nekk voilà lu lu mën a nekk dañu am 15000 milliards. mais boo boo boo loxo setee daal mën a bokk ak ñëpp. mais quand on parle de de miettes et boo xamante ne ni da ngay seet benn nit mën naa góor ci lu. Mhm. ay 10 millions de population bokk. Mhm. nit kese ko. Mhm. dafay métti en fait. métti na kay ba pare. Euh, boo boo boo waxee ne. koom yi boo demee ci banque yi nekk ci àdduna bi foo dem doomi Sénégal a nga fa ne xaalis bu ne guuj te booba jamono nit ñi ñàkk li néew bi di wax naan mhm. as dëgg war naa nekk ci war naa rusa nekk ci réew mu mhm. manqué lépp nga am fa lépp nga am fa lépp waaw te te réew mi manqué lépp loolu dafa yéeme am na yoo xam ne moom wax dëgg yàlla boo ko waxee ñu ñu tam la dëmm ñu ne politicien nga wala da nga farak mais am na am na loo xam ne wax dëgg yàlla mhm. am réew mu ko am ci ci budget boo xam ne da ngay def roulement wala fonctionnement. Mhm. nga gis koo xam ne oto ba muy dawal rek deux cent million wala trois cent millions lay jar. Mhm. kër ga mu dëkk deux milliards wala trois milliards la terrain ba jar. loolu nga gis muy fayeeku bu la waxee deux millions lay fayeeku par weer am na luubal gu ci am. dëgg la l'hôpital yi boo demee boo yor junni. Mhm. duñ la déglu. dëgg la ña fay liggéey. dëgg la lañ leen di fay. la yàlla xam doy na dëgg plateau médical bi c'est pas relevé. nit ñaa ngi dee comme ay weñ. xaalis boobu waroon a yegg foofu fan la jàdd. yeggu fa bu fekkee ki yor ngaska. mënut mhm. a orienté ndox mi ba mu dugg ci caniveau bi ba ñëpp jotandoo ci. problème bi partage de richesse dafay am. problème. Mhm. tey boo gisee yooni euh, àllub Saalum bi wala nga dem Kajoor wala nga dem Bawol wala nga dem fu nekk ci biir réew mi nit ñi mhm. dañuy yéeg ci ay sareet. pour wasini ca lañuy ñuy ñàkk seen bakkan. ngay digg ndakaaru digg ndakaaru hmm. benn quartier bu tudd hôpital maam Abdoul Aziz hmm. Parcelles Assainies ah. un million d'habitants boo fa hmm. duggee esparadara bi ngay tafoo wala alcool dañ naan demal nga jënd ko ci pharmacie bi jàkkaarloog yow amuñu nesi le minimum nécessaire ñi fa nekk ay jàmbaar lañ ay nit lañ dañuy jël population bi dóor leen ci kaw docteur yi docteur yi fipp parce que dañuy def ay sacrifice yoo xam ne ay ultime la fekk xaalis ba fa waroon a yegg yegg fa maa ngi dégg Marie euh, Xemes Ngom di wax ne deux deux cent milliards la soxla pour euh, faj santé bi. ndax santé dafa feebar. ndax santé dafa feebar. dëgg waaye bu fekkee ne foofu nga xam ne ñàkk dafa am ba ñëpp xam ko. ñu mën a lebi xaalis. Mhm. mbaa ñu mën koo fab ci gafa kay réew mi. Mhm. jox ko ay nit ñu koy luubal ba duñ ci jot. jot waxuma laak bu xaalis bi tuuroondoo suñu kaw. ndax dinañ ci jot looloo koy ragal. koy ragal waaw ñu ngi def pour man ñu ngi def ay jéego kam pour leeral nga gis assemblée bi ñu ci leen di ni ñu ko structuré nga xam ne. le foncier tout ça pour leeral yooyu yëpp ñu ngi ci def ay jéego. Ah. pour le moment <laughs> voilà. Ah, chaque jour ma wax la ne la Sénégal buy bind loi. <laughs> day jël <laughs> day day jël. mais praticabilité bi praticabilité bi. kay diamétralement ak défi bi. ak défi bi léegi euh, li may kii déjà am na image yu ki kii woon ay image yu bato yi ma bëggoon wane. Euh, bien entendu on peut la complicité de Grégoire. donc. Euh, pour mu wax kii kii kii kii la jox nga ndékki ba suuf bu la diggee añ. boo amee tuuti iman war nga ko gëm. effectivement donc li ñu ci wax mooy euh, revenu du pétrole et du gaz yi 10 pour cent la ñu wax ne pour les générations futures 40 pour cent et 80 pour cent euh, dans le budget. donc lii may wane nii lii daanaka usine de liquéfaction la mooy li may wax naan le cost oil ci cost oil la bokk donc ñu yëpp ñoom ñoo ko investir. donc boo gisee li nga xam ne moo xonk mooy usine la boo xam ne day seetal gaz pour mu mën a doon ndox li tafu ci moom mooy bato bi nga xam ne ay bato la gis bato bi mu ndaw te bu mag la mais léegi dafa que bi mu tafoo ci wetam dafa ndaw donc bato yooyu ñooy yóbbu gaz bi en cas de euh, ñooy yóbbu gaz bi en Europe donc gaz bi il faut ñu wàññi ko il faut ñu seral ko ba mu nekk liquide pour bato yi mën koo yóbbu donc day wàññeeku 600 fois son volume donc pour mu mun a nekk loo xam mën nañ ko yóbbu donc tous ces investissements dañu investissement yoo xam day day cher day day lourd fi ñu koy defaree fi ñu koy installé ci biir géej gi ak yëpp donc yooyu dee nekk ci lu ñuy wax cost oil loolu laa bëggoon woon Sénégalais yi. lii usine de liquéfaction la moom mooy jël gaz bi ci ngelaw nal ko ba mu nekk ndox. voilà voilà ñu mën koo defaat ci gaal gi. ci gaal gi gaal gi lan la. gaal gi méthanier la donc kii tam méthanier la moom laay wax sénégalais parce que ñun perspective yi ñu am ci gaz bi duñ question que dañu war a jël gaz bi jaay ko lii LLG la donc gaz bato yi nga xam ñooy yóbbu ci ci àdduna bi ñooy tas gaz bi ci àdduna bi. États-Unis actuellement day jaay gaz bu bëree bëree bëri Nigéria mu ngay jaay Angola Algérie donc ñoom ñëpp dañu am ay bateau yu mel nii. donc ñun aussi waruñu xaar euh, nu ngay wax naan gouvernement suñu secteur privé bi war nañu euh, war nañu am tuuti euh, nu mu te ñuy kii tuuti ñu commencer changer par rapport ak perspective yi xam nan la ñu war a investir joo ko ak Petrosen ñu xam fa la ñu war a orienter seen investissement ba nga xam ne dina jural kii parce que loolu la pétrole di ñariñ ak gaz. parce que gaal yi su fekkee ñun génduñu ko amuñu suñu gaalu bopp donc ay étranger ñoo ñëw ay société étrangère ñooy jël suñu gaz bi di ko yóbbu Europe ñu leen di fay donc suñu secteur privé bi aussi war nañu góorgóorlu ci loolu yëpp war nañu góorgóorlu ci loolu am ay bateau yu mel ni loolu la ñuy wax LNG carrier te cherul trop par rapport ak ñi nga xam ne ni ñu gisee seen ñeneen ñi am xaalis ñi am xaalis mun nañu investir ci domaine bi ci wàllu handling parce que dañu bàyyi ci wàllu entretien plateforme parce que plateforme biir géej lay nekk donc dina laaj ay entretien donc entretien yi war nañu dem jàngi loolu xam ko ba nga xam ne biir géej ju ay étranger ñooy ñëwati di ñu entretenir suñu installation yi dafa lay nekk ay années yi années donc entretien bi war nañ ko xam ravitaillement bi aussi ni nga xam ne ñi fa nekk dafa am ay ravitaillement yi nga xam moom la ñuy jot tout le temps seen lekk ak yooyu sénégalais di leen ko di def le supply bateau yi nga xam ne ñooy jëlee fii di ko yóbbu Europe wala feneen bateau yi mu doon ay sénégalais ñoo koy moom wala Petrosen dugg ci ak l'agent euh, ak anam ak des privés sénégalais ñu war a liggéey ci loolu bu baax a baax a baax parce que du question que da ngay jël rek gaz jaay rek daal di toog mais aux alentours dafa am économie bu fay bu fay judd loo xam ne dina indiwaat xaalis loo xam ne xaalis boobu suñ ko téyewul day demaat ci ay étranger l'entretien le ravitaillement le supply le supply. Mm-hmm. loolu war na ci góorgóorlu. le supply chain. le supply voilà donc yi mooy loolu moom mooy distribuer dans le monde. Mm-hmm. les boo ko amul c'est c'est beaucoup d'argent. te pour nga mm-hmm. amortir sa xaalis parce que déjà bateau baa ngi chaque fois rek dañuy yóbbu. parce que boo xoolee bu ñu installé après ça sera des bateaux bateaux dañuy tegle par semaine da nga gis chaque chaque semaine di nga di nga am di nga am bateau boo xam day ñëw di yóbbu. ci lu ñu am ci gaz donc chaque semaine nga gis bateau yi di ñëw di wala sax nga gis semaine boo xam ne ñetti bateau dañuy ñëw di yóbbu donc loolu dina tax kiy investir day rek gaaw a récupérer xaalisam. donc nañu investir ci dans dans ce domaine xool nu ñu investir Petrosen l'ANAM les privés sénégalais dugg dans dans dans cet investissement la donc su ma déggee daal tey sa euh, réquisitoire mooy. oui euh, état bi. Mhm. na am xelu. li ñuy gagné ci gaz bi ak mhm. pétrole bi. mu investiraat ko ci mbay mi. Mhm. waaw ak euh, infrastructure yi nga xam ne mën nañoo. général revenu wala autosuffisance autosuffisance voilà. wala am liberté di bañ a jéggaani. jéggaani loolu la. loolu il faut avoir une vision politique pour le faire. oui euh, beneen bi des mooy il faut que mu am transfert de compétence. compétence mu jugee ci xam-xam boo xam ne sénégalais yi amuñ ko woon. amuñ ko uti ko ngir mën a defal suñu bopp li ñuy fay keneen mu ñu koy defal. mu ñu koy defaral am na ay doomu Sénégal yu nekk ci ay secteur gazière ak. Euh, effectivement euh, les ressources naturelles ci yeneen réew yi. yeneen réew yi j'en connais plein de sénégalais yoo xam ne ñu ngi États-Unis ci affaire gaz la ñuy liggéey. ak ci affaire gaz ci affaire lan la offshore ils ils connaissent ay dëkk yu États-Unis Canada y en <coughs> léeg-léeg clubhouse dañ ciy waxtaan waxtaan yu mhm. xaw a xóot sax. oui oui. Euh, léeg-léeg dañ ciy waxtaan waxtaan yu xaw a xóot mais bon. Euh, lu mu ci mënti doon daal mooy euh, li nga wax noonu. Mhm. moom yéene koy def. <laughs> yàlla sax bu lay fay julli première tiyaaba bi. intention bi intention bi la yéene. intention bi. il faut avoir la volonté. maanaam xaaral ma am yéene julli. Mhm. ñu fay la ko déjà. innamal amalu binniyaati la ñu wax. voilà binniyaati jëf yëpp. Mhm. mi ngi tënku ci yéene. voilà léegi boo yoree réew nag bëgg yéene defar. loolu moom mooy. lay indi ci nga def lii. effectivement mais bu fekkee da ngay am yéene. Uh-huh. maak sama gars yi ma doon jàppale noon nañ ci de bi ñu doon dem Fuuta <laughs> wala bi ñu doon dem Casamance trop sonnoon nañ <laughs> léegi arama ceebal leen waay ah. mm-hmm. après boobu yéene boobu mënta mënta mënta boole defar du naax saay mm-hmm. maa la ko wax mm-hmm. malheureusement Pape oui c'était aujourd'hui sax voilà c'était aujourd'hui sax mooy le contenu local contenu local bi ñuy wax mooy loolu dañu toog rek naan dañuy jël euh, nekk rek simple euh, nu mu waxee sous-traitant mais bokk ci li nga xam ne mooy investissement yi nga xam ne mooy loolu topp affaire yi xam na lay doxe ba dugg ci bokk ci contenu local loolu la waaye du question que dañuy jël ay ouvrier di leen di leen di bu marché ba jeexee rek dañ fay jël ay ouvrier par exemple ci plateforme pétrolier bu contrat ba jeexee nga ñëw toogaat da ngay yaakaar ne contrat bi di la 6 mois 1 nga toogaat sa kër loolu loolu du noonu donc loolu moom ñu ci gagné perte temps la donc xale bu ñu dugg dañeen duggal loo xam ne day wéy loolu yëpp ñàkk formation ñàkk ay voilà ñàkk suivi la mm-hmm. aussi compagnie nga xam ne aussi ñooy sous-traitant yi nañu fexe di fay xale yi parce que xale toujours dañuy jooy ci ginnaaw compagnie yi di def ay kii fekk du leen fay lu lu ko jar jour bi nga xam ne fa la sa contrat di jeexee jour boobu ngay jeexal xaalis le SMIC sénégalais c'est combien ah le SMIC dañu waxoon trente cinq mille la trente cinq mille la trente cinq mille le SMIC salaire minimum salaire minimum interprofessionnel garanti. 30 <laughs> ñaata. trente cinq mille la. mais le offshore c' est autre chose le offshore c' est autre chose dañu war a dañu war na ci normes internationales parce que compagnie fay liggéey dañu defee xaalis donc foofu ku fay liggéey da nga war a am xaalis boo fa paree war nga mën a am sa dara loo xam ne war nga ci a jàpp. <laughs> Pape Sidi loolu moom ah. lay fay. est ce que. de base pour yeneen dëkk yi xam nga ay mille deux cent euros lay tàmbalee. ndeysaan. mille deux cent euros xam nga ñaata la. 1000 euros moom mooy 655 000. waaw oui 200 euros mooy. Euh, mhm. maanaam da ngay yegg 800 000 waaw 130 130 000 200 euros 130. 800 000 mooy salaire minimum de base. Mhm. yeneen dëkk yi mhm. yow sa salaire minimum de base mooy li ñuy woowee kii nii. 35 000 SMIC SMIC Sénégal 35 000. waaw 35 000 ah. ndeysaan. yow sa óol yi ñaata lay jar. <laughs> du ma la ko wax asgor war naa mu am lépp ci dëkk bu ñàkk lépp. barki borom Touba lii. man daal man daal man daal. man daal xam naa ni taxaw rek si le humoriste. ak Boy Town dinañ ñu reetaan ci deuxième partie bi la deuxième partie c' est après la publicité. Mm-hmm. on se retrouve juste derrière à tout à l'heure ne manquez pas woo leen seen gars yëpp leen ñëw. teranga teranga moo koy fay fayal ak Wave gagné ba 10 000 francs CFA scanel naan ku lamb yaa tey daagul fa ñu la nobe mhm. wéeva ngoog sénégalais yi ko bëgg ci seen xol boo laalee wéev laal sénégalais yëpp ñu jug ne la <laughs> booy yow loolu moo tax nga wax waa wéev dara ndax yëgoon ngeen ne booy fay courant doo fay dara wéev mhm. booy fay ndox doo fay dara booy jënd péage doo fay dara bu rapido wala bu xéewal wéev nee nañu léegi amatul fay di fay sa xaalis yaa ko moom bu weesoo un pour cent yi ngay yónnee xaalis. Mhm. Wave jëlut ci yow dara. booy jëlaat sa xaalis daal yaako moom. sa sa xaalis yaa moom. man nag man nag loolu moom yàgg naa koo kaas. ma ne la booy fay doo teg sa xaalis. di ko jëlaat muy manqué loolu moom du yoon. barki Rasul dëgg yàlla te xaalis fi tegoon mu nekk juróom. c'est Wave rien à manque. ah jëlaat mu doon ñeent. rien à manque. rien à maanaam booy fay courant doo fay dara. booy fay ndox doo fay dara. booy fay internet doo fay dara booy jënd crédit doo fay dara booy jënd rapido doo fay dara booy jënd xéewal doo fay dara waaw boo demee marché wala nga dem supermarché di jënd code marchand ngay utiliser boo jëndee sax dañ lay mayaat xaalis ci nga jëndoon waaw wéefay def li mhm. <laughs> dafay euh, euh, pour cent remise bi euh, kii bi nu kii bi ñaata lay durer lan ci mooy booy fay par code nii quoi booy fay par euh, par wave. waaw am na benn code marchand bu ñu lay bu ñu lay jox dañ lay dañ lay defal benn genre remise quoi. remise maanaam dañ lay yónnee. waaw. bonus bu ñu lay may waaw bonus boobu ñaata lay duré. duré sa xaalis nga daan duré. Euh, par exemple sama benn xarit bu dugg taxi fay 750 taxi wan bi. QR code ko waaw 750. ay 750 la. la fay taxi. Hmm. Wave delloowaat ko 750 yi. léegi nga ne ma 750 yooyu ñaata lay dur <laughs> xaalisam la nga naan ma ñaata lay dur léegi nag da ngay gis fii nii sama gars yi dañ naan la waa léegi yow may nañ la 1000 francs waaye hmm. boo góorgóorlu wut mu ngi mel ne nga jënd sa sandis moom sandis. Ah. borom hamburger bi topp la ne la waa léegi sandis bi da nga koy lekk léegi wala ma nangu. wala nangu <laughs> te yaa ko moom sa xaalis nga ko jëndee. Ah. amaana sax yow xiifagoo. yaa mais c'est-à-dire loolooy. maa la man te danaa la ko wan amoo doole maa ngi lay néewal doole ba pare. Mhm. nan la ñëwal man maa la baax. maa la baax moo tax sénégalais yi xam na bu baax fu ñuy dem. non léegi kay leer na. Nescafé nag dafa am ci lu ñu ne. depuis le 21 novembre tey le 24 novembre. depuis le 21 novembre ba le 17 décembre. première Nescafé méga xéewal bii dañoo tànn juróom-benni sénégalais. ku nekk ñu jox la enveloppe. bu 5 millions de francs CFA muy 30 millions Nescafé méga xéwal jàll am ñu naan ma yëguñu ko woon ma ne leen dinaa ko indi ci télé bi di ko wax danaa ko wax ci internet bi danañ ko taf ci tableau yi danañ ko wax ci rajo yi danañ ko wax ci télé yi déglu leen bu baax foo gis ñu bind fa Nescafé méga xéwal demal nga jënd li ko dalee mille francs waxuma la nga xoos carte mhm. waxuma la loterie da am moom sa Nescafé jënd ko yaa ko moom yaa koy naan Nescafé dafa lay jox benn carte bu tudd win carte boo jëndee lii da ngay am 30 points mm-hmm. boo ci tegaatee leneen ba am cinquante point yow mën ngaa gañe frigo mën ngaa gañe télé mën ngaa gañe congélateur mën ngaa gañe micro onde mun ngaa gañe fuur ci 50 points daanaka déjà mm-hmm. fii ba le 17 décembre nag boo fexee ba am 200 points ci sa carte boobu cafe mun na laa jox ambalogu un million mun na laa jox enveloppe gu 2 millions mun na laa jox enveloppe gu 3 millions mun na laa jox enveloppe gu 4 millions mun na laa jox enveloppe gu 5 millions de francs CFA. te xoosoo defoo bii gañ bi perte yaa moom sa Nescafé jënd nga ko te boo jëndee Nescafé automatiquement dañ lay may ngañaay ci saa si instantanément. Mhm. da ngay am benn loo boo yóbbu. maanaam doo rentré ak loxo yi. déedéet mhm. lii ku bëgg a jeexalee at mi li ñu naan tàmbaleeg cawarte jeexaleeg yokkute. commencez en force et finissez en force. c'est ça le slogan de Nescafé. wax naa la Wave wax naa la Nescafé qui règne avec Orange. démb ñu ngi woon Caritas bu Kaolack dafa am action de solidarité yoo xam ne saa yu ma koy wax ci Kirène avec Orange dama naan déedéet lii mënta ne lu ñu gañee ci askan wi rek delloo nañu genn wàll gi ci askan wi ku amul puisu Kirène avec Orange dawal jënd ko téeméer da ngay am ay giga internet yu doy puce bi téeméer lay jar Illimix bu jeex téeméer da ngay am appel illimité pendant trois jours téeméer le plus bi di jaar ñu may la daal crédit ci saa si yow. maanaam li lay may daal tout réseau. <laughs> tout réseau. <laughs> kiree na fekk orange laa la wax. yow lii ma ko wax. mais lii chaque jour ma wax ko ci télé bi ala jàpp déggu. mosoo ma ko wax waaye bàyyi ma waay. da ngay jege nit ñi moom yéen xéwal yi di am. <laughs> xéwal yi ah, bu ngeen dee bu ngeen dee bu ngeen dee bu ngeen dee woyaas yi rikk waay. tànn leen Air Sénégal International ñooy suñuy xarit bu ñu jëndee ginaar ñoom la ñuy may poj ba alaaji foo jaar yoon la fu ma jaar yoon la man lenn kese moo ma yéem Pape Seydi mhm. mais sedd bi mi ngi tàmbali nag waaw mi ngi tàmbali trop ba tax na man moom léegi bu gars yi taalee clim bi damay damay xuloo parce man clim ni may def tàngoor nga sa bopp da ngaa mën a weex nag alaaj man nekkee deux heures ba léegi da nga daan weex ay weex yu métti. mais ren moom jënd naa milen bu ba. millen mille deux cent bi laa jënd. ndax nga ne. milen mille deux cent bi laa bu bu gudd bi. waaw boobu da ngay milen bu jeex jeex. <laughs> Pape Sidi. Uh-huh. Nguur daa jóge village am. village bi tàng Dakar commencé naa sedd. Uh-huh. mu ñëw rek ak ay activité am ak ay sariteem commencé jox gars yi su ma bajan moo la ko jox lii kii moo la ko yónnee ay catiyel nii lii yaa ko moom ñu jékki-jékki ne ko ah ngóor ñun de ñu ngi lay defaral ndox waaye xam naa ne boo moywul dañ la koy mujj tàngalal rek mu ne tàngali lan gisoo leen suwetment bii ma sama suwetment caax bi ma woyaasee xanaa gars yi ni ko déet ndakaaru ak dëkk ba du benn affaire yooyu noonu defal ndànk rek ñu tàngal mu ne ma ne bu leen neexee ngeen nokkal ma ci ñaari buusi galaas ay waay góor gaa yi dégg ndigal ba dee mu continuer ay affaire am ci biir solog sumeeku brise Dakar bi commencé koo laal te te te inte côté gàlle Pape Sidi nekk fa la ay waay sama nga xam ne day af <laughs> sa waay xar-xaru tànk yi commencé sol ngelaw xam nga sama ko ñim affaire sax <laughs> moo ñëw fa décembre sa xoolal non mu ne ah man dafa mel ni liñ doon wax nag mais douze yooyu nga xam ne waaye public la ba pare ci couloir bi lay nekk mhm. ba pare day am écho boo sanguwul dañuy xam ne sanguwoo boo defee ñetti abdu dañuy comprendre boo dogalee ba pare douze bi daa gudd nguur def na kàccit porte bi seen siwo bi di saxaar rek mu ne alhamdulilahi rabbil alamina biñ ma ko tàngale lii ndax lii ma commencé yëg ci suma yaram bi man dama yaakaaroon ne sax damaa commencé tawat ndeke gars yi dañoo wër glace amuñu parce que seddaay la benn buusu glace lañ mujjee am saxaar soosu du tàngaay mais seddaay la oh my god <laughs> nguur ne xaaral ma testé seddaayu ndox mi ma gis nii su ma su ma xol bi mi ngi miti xam nga seddaay xol lay jàpp rek mu ne xaaral ma testé jël baaraamu sànkalañ bi ni ko duut ci siwo mu ne karaj damm aw oh ma bi dawatu sang bi ko addilee na ngor ne lii moom fi mu nekk nii xanaa demay jékki-jékki rek def ni gone yi doon def in et intura rek xëppoo ko dara yëngatuwul mu ne nii lamine bi kàddaaral bëgg na yuuxu mënul yuuxu mu jékki-jékki rek ndeke dese woon na tuuti suuful rek mu ne wayaayooy kër gi ñëpp daw si ñëw gaan fëgg dus bi lan la rek mu ne dem leen doon yeegaan ne man maay sangu tana ko yow yaay sangu kay <laughs> tàngal ndox mi mën nañ ci def galaat dem leen doon na mais tuuti rek. loolu lay wax ba dëggantaan ñaay li ma lay wax bërki dem dama yeewu bëgg a liggéey si xaw ma lundi la xaw ma mardi euh, courant dafa coupé chef oh, eau bi sama gër laa ilaha illallah maag sas bi négociation bu dëgg <laughs> da dugg di génn <laughs> ah, oh. <laughs> ah dama taxoon <coughs> dafa timide Modou wax hmm? yow après nga may alo bombay dara ma balaa ngay dem yar nañ ko yar goo xam ni. Hmm. moom du wax daan tekk-tekkaaral. Hmm. bañ ne ba seen kër di nga fa ñëw 9 ans nga fay ñëw doo xam am na ku tudd Modou Fall ku ci kër gi. Hmm. benn jour Modou Fall jóge ko ma dëkk. ñëw biir yëmbal seet si bin sa Abbas tantam la. ndeysaan Modou Fall maag moom période gi nekk. dugg si kër gi dañ teg benn xale bu am 4 ans. bañ naa déranger gi ndax dafa mu nuyu xale bi jàll ci néeg bi. tëdd premier jour ñu ndekk añ reer wuñ Modou Fall. kenn xamul mu ngi ci kër gi ndax timide. Modou Fall tamit teg. Mm-hmm. waxul maa ngi ci kër gi génn. sama mm-hmm. jikko la yor. deuxième jour añ ndekki reer wooñ Modou Fall. Mm-hmm. mu tamit nekk ci néeg ni teg. Ah. ba cinquième jour Modou Fall Modou koo muñ. kii dana dee di. mi ngi yor ci laal ni ndëpp ci ñëw ci gi Modou Fall ni tekki rek. indil ñu réel ma mokk ko. <laughs> Modou Fall xiif na. <laughs> waaw Modou Fall kat day dee oh. cinq jours lekk xiif na dinañ ko mbëkk dafa con de loolu moom mooy sax dama xoolal ndox naan mais Bintu Abbas Bintu Abbas ëppal na ëppal goo xam ni bag la dem am deuxième tour def arrosage ñu téye ko dafa dem deuxième tour def arrosage avant résultat bi di génn dem ñu téye moo um boppam dafa yàkkam di mais car bi dañ cee nekk ayca ñoo doon paas ayca na ko dal ayca salfaf gaa nañ ma jotal ayca naka benn waay jékki-jékki comme Pape Sidi. oto bi di daw ju nekk damit yorul paas. man man Modou Fall laa nuroo de nuroo ma ko kooku. Hmm. bëy sa waay xoola cëpp ginnaaw la cëppee rek teg ko ci. rek benn séeréer cëpp topp ko. oh. daw lu mu wàq séeréer bi suul lu mu wàq séeréer bi suul lu mu wàq séeréer bi suul muy jéggi di jéggi dal ci benn koñ boo xam ne impasse la daw daw daw ba def nii. tàllal loxo yi. nan waa ji dimbale séeréer bi ne ko xoolaat noo tébee wala nga tingom ma man yoruma paas. <laughs> wala n'o tɛ bɛ wala n ka p'o tigi ma dɛ ma. tingom wala ma tingom la ndax man yoruma ah, paas booy sangoon ba léegi Modou Fall laa nekk mhm. Modou Fall Louga la nekk mu fi ñëw Dakar waaw ah. eh, yaa ngi bëgg a sonal Modou ah. mbaay Modou Fall moom histoire la jógee na Louga mu sa dégg mu sa ñëw Dakar. Mhm. dégg ñu grand théâtre dem Abba Show. Mhm. mu ni fu mu jaar da ngay seetaane. Mhm. Modou Fall le 18 octobre 2010 la commencé dajale. di dajale di dajale di dajale ba 18 octobre 2022. 12 ans. Abba Show jaral na mun di ñëw Abba Show ni cëpp Dakar wàccul biir Dakar jam ñaajo la wàcc. di day dosé. wàcc del tag di ñaajo ba grand théâtre wàcc ñu ne ko 100000 mu passé lépp toog ba léegi duggul grand théâtre mu passé lépp. am Dakar bu digg taxi da ngay waxaale. <laughs> dugg taxi wàcc Grand Théâtre ñun ko 100000 la. cent mille taxi ba léegi duggul biir Grand Théâtre. c'est que si laa nag tam fii rubrique dagg wàcce la quoi mais tamit lii tamit waa lii laal la tamit. jugee naa université jëm France l'indépendance waa ji 8000 la ma fayu. ah <laughs> man maa ngi place di ree sama bopp 8000 billahi. te daa wiiri. 8000 université gën fii France l'indépendance. am réseau Dakar. <laughs> war a kii de 8000 la ma fay ñëw pour a man xam nga sama problème man 2010 avance de amul woon. non non 2010 la commencé dajale pour wàññi avance de. Fatou Ba li nga def waay <laughs> aywa nga def waay ah, yow dama <laughs> ah? <coughs> bi daa jógee Dakar. kii am na benn affaire bu muy def si internet bi. day gis mooy affaire indo bi. waaw affaire yow tey jël nga séeréer yi de. non séeréer yi laay waxal tey il faut que tu arrêtes avec bi dafa dégg masaalikul policier yi li si bëri ay masaalikul jinaan rek masaalikul jinaan la dégg rek ne jumaay sëñ Bamba ji faaw ma dem ma seeti ko waaw masaalikul jinaan gontoo foofu di ñëw pël ñoo waxoon masaalikul jinaan guddi guddi gi jot rek xola <laughs> guddi gi jot ci yoon bi <laughs> mu jub si tëngeej rek booy lamp su ko simi tàkk rek mu ne soofeer may ma may ma may ma hmm? jotuma woon a delloo sax waaye doy na ndax man jaral na ma ko may ma <laughs> ñu may ko rek mu laf noonu ak coono bi wàccee saaku yeeg yëpp toog ñu ne nii ngelaw ëf ko foofu noonu xam nga mu nelaw fajar gi xar rek mu yeewu ne nii rek gis gaa yi di yenu ay saaku di kii rek mu ne xoolal ma gaa yu ñàkk fay day man ba mbag lim liggéey ci réew mi ngeen di saj ciment si maa leen di yoone ba ñëpp yëg ko <laughs> moom soo ko sim la waay foog <laughs> na foofu mooy Masaalikul Jinaan mais gars yi wala gaa yi ne fi di sa semence yi ñii moom dañoo ñàkk fayda juma ji mënoo leen ko tee yëg laa wax juma ji day yëg bay fos <laughs> yow eh, eh digal lépp benn lépp si pël yi parce que bi nga ba léegi trois séeréer nga ñu may booy may ñu may ñu indo yi. sama yaay commencé ti xulóog ma <laughs> booy taw ah. boo waxee pëli mu yiw indo ah. yi man dama leen a bëgg. indo ah. yi waaw bo alu bombay. dama leen bëgg ñaari indo bu góor ak bu jigéen. indo bu góor ak bu jigéen day xuloo. indo hmm. maandu ci. dañuy xuloo ba sonn. rombante laajante loxo juboo moo tax bu leen rombee rek maandul seen bëggante. non ñoom dañu mun way nag. si laaxaan. xuloo na ak seen laaxaan. si laa xaan aju wuti géej benaa xaan ñëw di defal ci kinaay uh-huh. mi dur ki sëy baaba aciraaki yi rëkkul yaaye da kay da kay baab dar ka saaxee lu xaaxee miri accinam ka saaxee miri baarihee miri daqaari haaxee kii comme mi dar eh, ka ku góor ki day xaw wàcc niveau parce que du indil da ngay fenaan indil la indil la booy naa xam ne lay wax la. si la du nit. mais indo yi non mais mais mais Fatou dama wax léegi ma fàttaliku indo bi ñu bi daf ñu doon napp saa yoo ñëw rek danaan mburu ah gaa yu dafa ponkaloon nag xees gande ngay ñëw rek mu naan sa mburu nga jox ko sa mburu loolu rek la déggoon ci olof sa mburu nga jox ko maa jékki-jékki rek benn jour Pape Sidi jaar ci meeru Nogay mu jaay ma ndambe njame yoo xam ne day xonk uh-huh. ma lal ci kaani ba kaani gi nduroo ak ndambe bi ma ma si balaa mu naan sa ma jox <laughs> dafa xamp xampaat rongo ñu commencé seen ak baqatay mu jékki-jékki rek ne ma kani kani kani kani kani mais Pape Sidi di wax ne nag balaa balaa balaa balaa ñuy fàtte xam dafa am benn jeune boo xam ne mi ngi tudd ouz esprit dundu moom tàmmoon na di la defal lii waaye def la ne ci coupe du monde bi dafa indi touche am parce que dompat sax ci sot la bokk nee na empreinte am collection bi sunu empreinte ci mondial bi la ko tuddee très bien c'est très waaye sunu empreinte mu ngi noonu sunu empreinte derrière avec euh, le logo du Sénégal. waaye noonu la demee moom laa sol nii donc ku bëgg ci yii nii yu rafet yi. Mhm. Ouz mi ngi nekk euh, fële ca euh, Fadia numéro 77 la 822 06 41. 77 822 06 41. ayca mi ngi noonu. <laughs> fan nga dëkk ci Louga yow. Louga Algérie la Algérie. Algérie montagne. voilà Algérie. dëkku Baye Djili Mbaye. waaw ah, bu mag bi yoon de. Euh, waa Louga yëpp ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax. Euh, Sylla il est il est très très très suivi sur les sur les sur les réseaux sociaux. surtout sur TikTok moi je te regarde là-bas. Euh, tu fais vraiment un travail remarquable. Mm-hmm. surtout quand il patch l'anglais le mm-hmm. français. ça veut dire que c'est un étudiant qui a beaucoup de talent il est en mm-hmm. train de révolutionner le monde de l'humour et ça ça mérite des encouragements je t'encourage vraiment du fond du cœur. je te souhaite tout le meilleur et puis il faut pas lâcher le personnage du Ndola. Khady Khan ak. kan la <laughs> Sila Khan ak Sila Khan mooy loolu mën ngaa mën ngaa nuyuwaale ñi nga bëgg a nuyu. félicitations di di kontaan bu baax a baax. di mm-hmm. invitation bi encore une fois. Mm-hmm. di bége Boy Town. leen mm-hmm. bége bu baax. il est généreux non c'est plus que généreux même. il est généreux te bizarrement leen waxoon bi nëbët la quoi. <laughs> non même <laughs> nga jël ba pare voilà ni ku cool la. ba ma demee Aba Show ñoom ñoo ma dalal. lay dañ lay boole ba nga yaakaar ni yow. yow yaa man lépp yow yaa yaa leen yaa leen jiite. ndeysaan sa talent la rek maanaam loolu nit ku baax moom moo koy def. sa talent rek ñëw mu boole par ci hmm. ba pare di bëgg baax a baax waa UCAD Université Cheikh man ñoom la am doole maam ñoo ko may. voilà dañ ñoom bu leen tudd ah dañuy ñëw fii de. dañu réew xëy maa ngi ñëw demal demal balaa géré di la dagg géré goor da lay dagg. di bëgg baax a baax waa Louga. <laughs> Ah. voilà Louga gama dëkk. waaw voilà mooy sama fierté la nekk dañ ma may doole ma la ñuy bëggee di ma saafoo fu ma toll di bëgg aussi voilà bu baax a baax Binta Abbas Gaye dama ko sonal sans vidéo yëpp mi ngi ci. nañ laa soxla buñ la saaf nañ la safoo <laughs> ngay saafoo. waaw di bëgg sama maman bu baax a baax sama yaay waaw moo may ñawal leen tamit samay génn fu bëree bëree bëri. big love voilà c'était. voilà voilà voilà Sylla thank you merci man su ma demee université Cheikh Anta Diop. Mhm. bi ma yegsi ba bu may génn université. looy wax ouze esprit dundu. ay dessin ouze esprit oui maa ngi voilà Ahmed Sa Diam maa ngi nuyu Binta Faye ma cousine la Mauritanienne maa ngi lay nuyu Malaysia à jeudi prochain incha allah. soxna Ndeye Ngone depuis Abidjan mention spéciale à toi sauf euh, aba nuyu ma la parce que man ak Aliou Cissé dañuy xuloo mu dugg si di ma woo naan ma yow man la faral Abba bugguma nga faral ma man ak Aliou Cissé ay xarit lañ seytaane nga xuloo ay rastaman lu si borom ndel di wut. Eh, eh, non kan la kon kon Aba Aba stress ngay wax. booy Aba yaa fi ne. Aba yaa ne. barki yàlla nekk waaw yaa fi ne Baye kii bu ko sax lijjanti. bu ko lijjanti man yow la àndal. ñun xaaruñu ba gars yi naan saraxu ndel ñu ndelu ñun ndel national lañ am. non ndelu leen da ngeen a la. <laughs> ay ndel national la. <laughs> dañoo xuloo parce que ay xarit lañ. Euh. ay bëñ ak làmmiñ a dëkk. Euh. waaw bu benn seytaane ñëw fii naan ay day jéem a dugg sama diggante ak Aliou Cissé di si intervenir ay Boy Town ay Aba yéen bu leel yi di xuloo ngeen.